سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء حذى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى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 المتجلي بأسمائه وأوصافه في حضرة اللاهوت وبأسراره في حضرة الجبروت وبأنواره في حضرة الملكوت وبالأجرام المتشكلات والصور في حضرة الناسوت الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مشاكل ولا معاند ولا صاحب ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج تعالى عن ذلك علوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون سنت الله ميغا خامني مو فيني تي مبولم فيني واي تي مبولم بي تي بيو هاهوت اك بيو لاهوت اك بيو جبروت اك بيو ملكوت ak ci mboolem pays ci mboolem feeñuwaay yi yàlla moomu nga xam ne lu taxaw rek ci taxawam moom yàlla la gannaaw ak amam ak amalam moom yàlla yàlla moomu nga xam ne moo feeñe ci ay jëmm yu feeñ yuy taxaw ñu di leen gis di leen làmb di leen daj fii ci peyu suut bi nga xam ne nit ci la nekk doomu aadama yàlla moomu nga xam ne moo ñu xewal mbooleem façon ngi xewal yu jaam bi soxla yépp ci dundam te bokk na ca la ci ëpp solo mooy asamaan si tam téyel ñu ko waaye suuf si it tam téyel ñu ko it yàlla moomu nga xam ne lu taaru rek ca taaram bala mo bind mo melal waaye jagleel ci doomu aadama na mu gëna jekke na mu gëna taro xewal ñu mbolem xeeti xéewal yi yi nga xamne nit ki soxla nako ci dundam bi te mom yalla mom rek la lu xewal reey reey yalla rek la kudul mom sabab rek nga ci doon dale nit ki warna sabab sabablu yalla mom lañ ci wara sante sant xanaa santaale sant rek ki nga xam ne moom la yàlla jaare la xéewal gi waaye dëgg-dëgg sant yépp lépp rek yàlla la yàlla moom ku ñu war a jaamu la ku ñu war a déglu la ci jëfe ay ndigal waaye bàyyi ay tere ndax lépp day dellu rek ñeel jaam bi ci texeem yàlla yàlla defal ñu ko wala texeadeem yàlla nañu ci yàlla musal yàlla moomu moo bakkan yi lepp ci mom yalla lay dundé huwal hayyul xayumu ku dé yalla ray kuy dund ci yalla ngay dundé nit manalul kenn dara yalla rek mo yoré mbir yi ñi ngi ñaan yalla yàlla moomu yàlla yalla defal ñu jamm fadu mukhlisina yalla jamu ku ñu wara jaamu la nak jaamu ko xamne dañ koy selal te moy jublu ci rek jaamu yalla bu ci jublu sax mu fay la bu ci jublu tabbi ci aljanna bu ci jublu sax mucc ci safara yaqut ko waye jaamu deug deug moy rek nga ne man jaam la jaam li war moy jaamu yalla momu nima ko waxe tuddu na mag sellam mooy ne kuñu wara magal la kuñu wara war sellal la ci bir ak ci biti ci li feñ ak ci li nebu ci waxtu mbektek waxtu njàqare waxtu wer ak waxtu di yep jaam bi dafa war a delloo boppam yàlla rek yàlla moomu nga xam ne amul dara luñ ko war a bokkaaleel dara melut ni moom dara du yàlla waaye dara génnut yàlla laysa kamislihi shay'un wa samiul basir mboolem jamono nag suba ngoon ngoon guddeeg bëccëg lépp war nañ di jaamu yàlla jaamu yàlla nag ci gën a kawe mooy nga fàttaliku jamono ju nekk na jaamab yàlla nga ndax loola sax moo lay pousser nga dem julli ji yëg ne jaamab yàlla nga mooy tax nga génne asaka yëg ne jaamab yàlla moo tax nga jël ay million yu bari dem aji makka yëg na jaamab yàlla nga moo tax nga woor woor weer wii ndax kenn ku nekk ci ñun ci weer wi ñàkkut wéet nga ci barab bu xam ne ak ci jamono ju xamne yalla rek mo la doon gis lu la neexoon nga def ko waye nangu ne jaamab yalla nga motax ba nga wete it yep tege ci sa kanam jaam gisul la mindeef gisul la waye nga nangu ne jaamab yalla nga nga wor sa kor kon jam yalla bu doon amna na ay reen ash-shu'uru wal ihsasu bil ubudiyyati wal qabulu biha su boba mbollem sey minute ak say waxtoog sey bis ak sey wer lepp jam rek lay don doo yem rek ci al ibadat niñ koy waxe julli yi woor ak li waye da ngay dugg ci al muamalat te moy jeflante bi te lolu nak moy li nga xamne lu jara baye xel la yi wala leuf ci borom xam-xam yi ñuy wax ne ñun fi ci senegal dañoo wala bok ci al maghrib dañoo concentré trop ci fiqhul ibadat baax na lool nag fiqhul ibadat mooy boo defee lii njàpp la toj na ne nga koy defaree boo jullee boo defee nii danga nga sujjóot baada salaam boo ajee màkka boo defee nii jattu nga danga nga war a def hadiyu loolu mooy fiqhul ibadat waaye fiqhul muamalat waroon nañ ko gën a jàngale gën koo yaatal nooy jëflante ak nit ñi jaami yàlla yi li ci yàlla sant loolu mooy fiqhul muamalaat yàlla ñu ci yàlla dimbale la la cay gën a dimbale nag mooy nga yëg ne man mii jaamab yàlla laa ñëppit jaamab yàlla lañ kon duma ma leen lor du ma wax ci ñoom lu ñaaw du ma def lu du rafet jëmee ci ñoom ndax ki leen bind subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa na alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin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 yàlla moomu mu doon wax léegi ñu war koo màggal jamono ju nekk rek feeg guddeeg bëccëg ñu ngi wutuwante yàlla moomu nga xam ne moo feeg mu ngi daganal li dagan xaraamal li xaraam feeg ñu ngi woor di dog ñu ngi koy màggal di ko sant di julli ci woosali woosalim ala sayidna muhammadin allazi arsalahu li kaafatil ba mu watadan lil aslaam di julli ci ab yonentam mi nga xam ne moom la yàlla yónni ci lépp lu mu bind wa mu watadan lil islaami man farada fi nahaari ramadan asiyaama wa sanna fi layaalihi tarawih wal qiyaam wa ala alihi al kiram wa sahbi al fiqaam yàlla moomu nga xam ne moo farataal ci weer wi ñuy tëj tey wala boog ñu tëj démbu or bëccëg bi naafila guddi yi waaye yàlla na yërmande yàlla nekk ci saxaaba yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi jëlee ci yonent bi jottali ñu lépp ba ci julli ñu ñuy taxawee amma baat fa yaa yoon naasu yàlla mu aslaha allahu xaalana wa xaalakum wa maa lanaa wa maa lakum anna yowmana haada yowmun sha'nuhu inda mawlaana azim xaytu xatama bi shahra alkarim waftataxa bi shuhura xajja baytihi alxarim wa jaalahu yowma ciidin wa zinatin wa surur yàlla yàlla defar suñu mbir yaan na yàlla yéwénal suñu mbir bis bi bis màgg la fa yàlla ndax mooy mottali koor gi ci la yàlla di ubbee it di ubbee it weeru aji waaw kum neexoon léegi nga armal dem aji xaar yow mu minan rek yow mu tarwiyati su boobaa nga daal di dugg ci aj ga nag wajaaloo yow ma idin wa zinatin bisu feet la dañ cee war a bég dañ cee war a feeñal taar boo ci amee naqar sax te yàlla bu ko kenn am da nga ko war a nëbbu ci bis bi wala sax da nga ko war a bàyyi mu jàll ni ki jéggal ku la tooñoon wala jéggal ku la leboon ay bor wala daal yi mel noonu yëpp nga génne ko ci sa xel génne ko ci sa xol loolu mooy mbégte li gën a am solo du mbégte zahir bi rek togg ak yàq déedéet du sangam defoon na ma nangam naqadi woon na ma jéggal naa ko te yàlla tax lii lii laa lépp ba naa ko te yàlla tax bu ko defee rek yàlla wutul la ca loola ibnu ata illa al iskandari danay wax ne nit ki buñ ko toñe mu meuna fayu ta da don firi hadith yonent bi ne jéggale mu ne yalla dana defar sa mbir dana mengo sa mbir waye bu fekke ku toñ rek nga taxaw ne dina fayu dana def lii yàlla dalay setan ak jami te kenn nak manul rek di fayu rek di am ndam de kon lolu amna solo fa wa yawm tasbihin wa tahmidin wa tahlilin bisbi bi bëgg nañ ci di ci bari sabbal ak wat fabadru ila fi'li ma'muraatihi nañ lu ci jëf mbollem li nga xamne dañ ko saggu ci bis bi ci ay digal wa sadaqata al fitri wujuban wa hiya sa'un an kulli muslimin dhakarin aw wa untha hurrin aw abdin kabirin aw saghirin war ngaa mu kor koor bala ngay ñew ci jotay bi te mur mo moy sa julit bu nek li ñu tuddé sa warna gor warna jigen warna jam warna gor ndaw ak mag يخرج الشخص عن نفسه عمن تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش أهل ذلك البلد من قمح أو شعير أو سلط أو أرز أو دخن أو ذرة عن طيب نفس وانشراح قلب فذلك هو الأدب loolu man nga ko yow la war yow mi nga xam ne yow la dund waa ji waroon moo xam nag ci jege ñaaleeg wala ci denc ni ki borom kër ak soxnaam wala soxna ak borom këram wala ak njaam képp ku xam ne mu ngi ci saroon te boobu njaam nekk ci xëy na ca jamono yooyu la woon wax ne war na la nga génneel muuram koor def na ko génne nag ci la gën a not ca dundab ñooñ jamono jooja ñooñ gox booba niki ceeb wala dugub ci suñ jamono ji wala ceeb wala mboq wala boog nga nattale ko ci xaalis loolu lépp mën naa nekk ah da koy def nag ci tii ci ci tey bakkan waaye ak ak ak nangu fa dalika huwa al adab wa waxtu ixraaj zakatul fitri min xurubi shamsi laylatil iidi ila al fajri ila tulu'i shamsi waxtu génnee muuram koor moomu nag démb bi jant bi sooyee rek ba fajar wala suba teelu wala boog laata ngay ñëw ci julli ci julli gi am na nag ñu ne nag keroog bi nga wooree rek bi nga wumee rek mën ngaa génnee sa muuram koor boo demee ci dëkku naar yi seen ngir yi ci ëpp ñoom bu ñuy woor rek bis bu njëkk ba rek natt nañ muuram koor waaye ñoom dañ ko organiser ba nga xam ne dañ koy yóbbu ci ay bërëb ñooña di ko dajale muy nekk ay tonu ton ñii sax ñi génne xaalis muy xaalis bu bëri ñu di ko tasaare ci way new doole yi loolu it mën na wa yoxtal faqiru wala tasxutu bi mu duy zamanihi fi xaqil mu mu assari mu assari wa tasxutu fi xaqil mu assari fi xaqil mu assari wa tasxutu fi xaqil mu assar mu assir ak mu assir yëpp wér na du du la wàcc nag dale dale diir bu yàgg la ci moo xam kii xoomal la ak kii ak ki xoomalut yëpp waxtu kaamee daf koy génnee wala yak fi ixraajul qiimati inda malikin rahimahullah imam malik nag moom daf ne génneel ca la ngay dundee moom wala malik ya gisuñu nga génne ko ci lu dund ba maanaam comme ñi koy génne ci xaalis da nag wér na mën naa nekk euh, wayunda bu takbir min xinal xuruj li salaati ila an yaatiya al imam aw yaquuma li salaati sopp nañ ba nga xëyee jógee sa kër wala ba nga xëyee rek ngay kabar naka noonu ba bi ngay ñëw si julleekaay bi ñëw toog di xaar fek imaam ak siwul sopp nañ ngay kabar mooy rek bañ a dugg ci ay wax yu xam ne dalay euh, génneloo jaww ji nga xam ne moom la ñu war a dund aw yaquma li salaat wala lafzu allahu akbar nit ki saxoo rek allahu akbar wala lu mel noonu laa ilaha illallah ak yi mel noonu yëpp wa man jaa min tariqin falyarja min tariqin uxra fa dalika aw faru lil ajri booy ñëw mën nañ nga jaaree ci aw yoon booy ñibbi sopp nañ nga ñibee weneen yoon dul woowa yooyu yëpp ci njëlbeen na lislaam dafa amoon ay xikma lu ko waraloon mooy noonu yi gis ne lislaam bari nañ jaar nañ fii ñu gis mbooloo mi buñ jaaraatee feneen wala boog ñu ne booy ñëw ñi ci yoon wi di ay néew doole nga sarax leen booy ñibbi jaar ci beneen yoon man a sarax ñeneen ñi wa qadru sa'in arba'atu amdaadin saa bam la waxoon ne moo la war nga génne ko ci muut moom la lay wax mooy lan mu ne mooy ñeenti muut bi muut yi alayhi salaatu ci muutam yonent bi boo ci amee ñeent mooy benn saa bi nga war a génne wa man lam yaqif ala xaqiqati qadri muddi nabi sallallahu alayhi wa sallam fali axud arba xafnaatin bi xafnati rajulil wasat mu ne bu fekkee xamuloo luy saa luy euh, luy mudd mu ne mooy nga euh, ñeenti tibbin ci ab loxo bu xam ne laysa bil mabsuutati wala al maqbudati fa dalika huwa qadru saaya loxo bu xam ne boo ko tàllalee ñaari doo leen tàllal ñaayi ba mu jegi dayoo waaye doo leen bank boo ci amee ñeenti tibbin yooyu mu ne mooy benn mudd loola nag nga def ko ba mu ñeenti yoon mooy benn saa wa yusannu izaaru zinati bi tiibi wa thiyaabi walaw liman lam yaxruj wala yutraku zodan wa taxashufan maal qudrati ñëpp sàkku nañ sunnaal nañ ñu feeñal taar ci bis bi ni kii sol yére yu bees wala lal gëtt dale sax ki nga xam ne am na ngantal ñëw ci julleekaay bi sopp nañ bu xëy mu def loola toog fa mu nekk xataa ñi ci hôpital yàlla na yàlla may leen wér bu doon ci dëkk yi nga xam ne dañuy organiser yi bu ñu xëyee sax dañuy dem ci hôpital yi ñi am yére dañ leen di euh, dimbale ñu sol ko ñi ko amut ñu yóbbu leen yére yu bees ca seen lali yi tawatee yal na yàlla fëgg bopp ñëpp te yàlla may saxalal ñu wér wal mashu ilal musalla naa muttafaqun alayhi wa rukubu xayru makruh li annahu na nit mën naa dox dem sopp nañ ko waaye boo amee war waaye it war ko sikku euh, dara nekkul ci sibuñu ko ndax bis bi feeñal taar la wa hada yowm wa kaana alayhi salaatu wasalaam laa yaxruj yowmal wa yaakuloona witran bëgg nañ balaa ngay ñëw si julleekaay bi nga jël ay doomi tàndarma xewlu ci ndax wane ne koor gi jeex na noonu la ko yonent bi daan defee te sopp nañ it mu nekk lu tool benn wala ñett wala juróom wala juróom-ñaar demet wa yanbaghi tarkul musalla makshufan la binaa fihi wa in kaana bunyaanun fa yusalla xaarijuhu fil baraahi wa huwa al afdal wal awla bal wal mutaayanul yawm sopp nañ julli ci bayal niki fii fu xam ne ay tabax nekku fa waaye nag bu demee ba mënuñoo ñàkk fu ci jullee ci biir tabaxit nee na amul lu mën a nekk la waaye fekk yaa ngi mën a jullee ci fu loolu moom ci dëkki Afrique dëkk yi la waaye boo demee ci dëkki tubaab yi nga xam ne dañuy tere kuy julli ci biti ak ci mbedd yeeg yooyu ñam ñëpp seen biir jumaa yi la ñuy jullee te loolu mën naa nekk ba ci dëkku naari sax bal wal mutawil qaala alayhi salaatu wasalaam shahru ramadaana muallaqun bayna samaai wal ardi wala yurfau i bi zakatil fitr mune wéru koor boko ko dañ koy aj diggante asaman ak suuf duñ ko jàllale mukk fee wala muram koor kon solo muram muram koor ngi nonu wa wa inda sallallahu alaihi wasallam sallam inna allaha yattaliu fil aidi fil aidaini ila al ardi fa abrizu min al manazil talhaqukum rahmatu wala basa bi xuruji nisaai yashadna al khaira mune yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ngir wax la yi génn ñew ci kay bi nim tollu ñu di la jàngal ne la yàlla day feeñ ci ñaari day génn day génn wala day yurlu boo ko ci mën a xool day wàcc ci waxin rek ngir nga mën a dégg waaye ku xam ne jogul fenn fadduwul mu ne day yurlu ñooñ suuf mu ne kon génn leen ngeen génn leen kër yi ndax ngi ndax yërmaane yàlla man leen laal mën a wàcc ci yéen ci bis boobu jigéen ñi sax dañoo war a génn وكان عليه الصلاه والسلام يخرج الى المصلى العواتق والابكار والحيض وذوات الخدور لما هنالك من الخيرات وهن معتزلات يونت بي دا فلون خير لول دي دغو تي بير كير يي ولا دي يوني تي بيس بي ني نانا نييب ген جيجين نيك موي خالي ندو ييك جاغي مار ييك جانخ ييك مير ييك نيغا خامنا صاح جوروتو ني نييب يونت بي دا دان واخ سولو لين ген ген كو ام صاح مبيري جيجين صاح nee na na nga génn na nga sangu génn waaye boo demee na nga toog comme ni jigéen ñi beroo nii rek wayu ndob ixraaj sadaqati fi misli hada al yowm faqad kaana alayhi salaatu wassalaam yaqul yaa nisa al muminat laa taxqiran laa taxqiranna ixdaakunna li jaaratiha walaw koraa shaatin muharraqan bëgg nañ loo baril di génne sarax bu bokkut ak muudam koor loo am nga bokk ak jaami yàlla yi ci xër nit ñi ci solo su sarax boobu am ci bis bi yonent bi daan wax ne e eh, yeen jigen ñi bu leen xeeb doonte kala sax nima koy fere xaritu gerte la wala ngaddu guru wala bok yeelab bëy bëy wala xar lo meuna a am rek la la bëgg wax nang ko génnee sarax ci bis bi ittaqun nara wa qala alayhi salaatu wasalaam ittaqu naara walaw bi shaqqi tamra wala bi kalimatin tayyiba safara doonte kala da ngay joxe ben doomu tandarma wala wala lu tol non wala sax bu yooyu yëpp ci momel go xamné amoko ko pour joxé ko mune ngay wax waxu bax wa kaana aleyhi salaatu wa salaam kullu mri'in kaana fi dilli sadaqati hatta yufsala bayna naas ndax bis penc ci nit ñi seeni sarax ñoo leen di keral ni sa sarax toll rek noonu la sa ker di gën a seddee noonu la gën a yaatoo yàlla na ñu yàlla jàmm bi kerage wa tawaasaw bi haqqi wa tawaasaw bi sabri yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi ñuy fàttali aaya ci suratul al ci ñuy déggan dénkante dëgg waaye ñuy dénkante it muñ loolu nag kon nit ki bala ngay ne naam nafa bañ na la denkantel deug moy ne kon na nga dund ci deug na ngay wax deug na ngay def deug na ngay dem ci bëreub bi deug bi deug yi demet watawaso bi sabri muy na ngeen di denk na ngeen takko di denkante muñ lolou la ci jitu it moy yow sa bop ngay takko muñ nga muñ ba man ko diglé ba boko waxe ñu xamne mu ngi ci yow wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu na ngeen ragal yalla te na ngeen xam lu mën xew lo mën yoré yore ci ay ndomba tank ak ci wërsëg ak ci njabot ak ci ay ak ci ay gàllaaj ak ci ay mbolo ak lepp rek bis dina ñëw nga ak sa borom de té loolu lepp sa gannaaw nga koy bayyi sëriñ bi cheikh al islam daan na wax né dajalé ba mbëri rek ben ci ñaar yi rek dem ba ko fi wala mu dem bala fi wa bashiril muminina dhkurullaha kathira qaala jalla min xaayilin nañ bari lu ñuy tudd yalla ci làmmeñ waye ci xol yi tudd yalla rek moy baña fatte yalla nima ko waxe legi rek fo nek rek yalla nga fa ko nek lit yalla nga ak yow yalla nga ak mom yalla nga and ak yéen bu defé da nga ragal yalla ci da nga jaam ngir ki len bind da nga sagal da nga wursagal da nga dimbale jaam yi doo lor ngir ki len bind فاذكروني أذكركم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله